aywa miroir euh, régional euh, dañuy dem seeti ji Thierno Fall tey nag la mu wax rek mooy lu jëm ci wàllum infrastructure sanitaire muy bërëb yi ñuy fajee askan wi ak itam ay ambulance nee ñu euh, commune nu Cap bu Gay dañu ko tumuranke ma nga nekk ca département bu Kébémer diggante Louga ak Thiès moom dafa narale kàbbu bu Gay ñu ne nag Cap bu Gay dëkk boobu ay jafe-jafe rek la am ndax nee ñu ñaari poste de santé la am askan wa fa yeewoo loolee mënta kaas seeni soxla aju ci wàllu wér-gu-yaram duñ ci sori dañuy dem ca diwaan ba fekki fa Thierno Fall moo toggal télévision Futur Média ca Njàmbur ak li ko wër. commune bu Kabougaye li mu yaatu yaatu ak dëkk yi ko seq li ñuy bari bari ñaari post de santé rek ñoo fa am benn bi ñu ngi ko tabax ci lompul sur nga xamee ni bokk na ci dëkk yi gën a rëy ci commune bi askan wi di bàyyeekoo fu nekk ci gox bi di fi faju si. daanaka ni bu fekkee nekk na fi lompul jokkul euh, commune Kab Gueye commune Thiep mboolem ñi nekk ci li ko wër lépp ñëw fii di faju ji poste de santé bu Lompoul fréquentation yaatu na lool waaye nag ñàkkum ambulance nekkoon na gàllankoor bu mag ñeel bërëbu pajukaay bi ndax saa yu ñu tollee ci wàllum évacuation ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel. ndax heure bu ne nit jóg na ko fi yor sareet heure bu ne nit jóg na fi yor kalandoo te kalandoo doo xàmmee bu baax doo xàmmee bu bon. weer wu ñu génn rek. sama doom dafa décédé sans ambulance ma ko yóbboon ci la jaar décédé ko sama doom man te ñàkkoon am ambulance rek moo tax ndax am oto ma ko def évacué pour mu yóbbu ko à Louga sori comme ni ko maire ay calando ñu fi nekk dévidéo calando yu baaxul zone Lompoul Kébémer dafa nekk zone accidentogène même pas un mois rek amoon na fii accident dañoo mujj pour ñu ñëw jël ay blessé di leen yóbbu Kébémer pour ñu mën leen jël en charge. jafe-jafe yooyu nag mën nañoo jàpp ne lu ci bëri dina saafarawu ndax maire bi ci ndimbalal ay partenaire am am na ambulance bu yees sax bu nga xamee ni indi na ko jagleel ko poste de santé bu Lompul sur Mer. ñun nag bu ñu toogee ba yàlla di am partenaire bu mel ne GGD Georges Tomé mooy ñu ñu di am ci mbégte am ci kontaan surtout maire bi nag vraiment ñun am nañ ci contant am nañ ci mbégte lii presque moo waroon. may wàllum pour ambulance bu su kuréelu sud bi tooy na booy may ñu ambulance ñu ci am kontaan am ci mbégte. ñun lu nu xaaroon la ci ci dëkk bi parce que euh, Lompoul dafa nekk poste de santé bu bees dafa nekk tamit dëkk bu mag. parce que ñun xam nañ ci dara ñun ñëw inauguré poste bi tey jii bu bu monsieur le maire taxawee ba indil ñu benn ambulance loolu dafa jàpp si suñu liggéey parce que ñun ñoo naroon a daw si ginnaaw état bi pour indil ñu ambulance tey jii bu ambulance bi taxawee ñëw day day mel ni wàññi na liggéey bu bari dina dina tax prise en bi dina gaaw waxuma la lool sax waaye tamit jigéen ñi nga xamante ni danoo amee euh, euh, da dañuy faju fii wala ñu am jafe-jafe wérgu yaram comme jigéen ñu ëmb wala jigéen yenn yenn yenn yenn yenn cas bi dina tax seen évacuation gën a gaaw comme ça bu ñëwee au niveau du district sanitaire nous on peut prendre euh, en charge le reste de de ci liggéey bi. commune bu Kaba ay mi ngi nekk ci département bu Kébémer waaye nag féete ci diggante ñaari région muy Louga ak région bu Thiès looloo waral sax ba dëkk yu bari fekk baax ci commune bu Daaru Xudoos fii la ñuy fajusee ca commune bi amul lu dul ñaari poste de santé meeru dëkk bi di sàkku ci ministère de la santé ñu yokkal leen bërëbu pajukaay yi ba askan yépp man cee jotee aywa Thierno ñu sant ko bu baax gërëm ko laata ñuy wax rapidement ci wér-gu-yaram ak taxaw seetlu bi foofu la